Euh, mi ngi noonu internet yi SBT Média point com amaat mbégte ak kontaan dalalaat fi champion bi Bou Siteu bokk ci làmb làmb xam ko xam naa nag ñëwaguñ ci paasu làmb ndax ci actualité réew mi lañ bëgg waxtaane ak yu mel nga xam se ne nii euh, euh, ma leen di wax ne abonné leen ngeen ba seen touche cloche notification mais Bou Siteu mu mel promoteur bu mag bi ki nga xam se ni moo tax ñu wax làmb Gaston te mu te mu dawoon dafa mel ni dafa dellusiwaat waaw Gaston waaw maa ngi dégg ay sorties yu mu tëgg ay combats yu mu tëgg waaw dégg naa ñëwaat na mais dégg naa ñëwaat na waaw. Mhm. ni ñëwaatee est-ce que est-ce que Boucher gis na ci boppam. waaw ni mu ñëwaatee dégg naa moo tëgg combat bala Gaye Gris Bordeaux ah su ma juum benn combat boobu noonu waaw dégg naa moo tëgg combat boobu maanaam loolu lu rafet la gis nga maanaam promoteur yi làmb dafa deewoon xam nga kon moom bu ñëwaatee rek. pour indiwaat genre événement yi mel noonu dañ koy bëgg ndax promoteur yi si bëri kii di ñaanal tamit léegi ni ko laa maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dimbali ñu bàyyi ko ndax ndeysaan gis nañ liggéey bu rafet bu muy def si làmb xam nga lig Nicolas maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dimbale mu génn si fu mu nekk xam nga caabi xam nga caabi kii ko quoi mu ñu bàyyi ko maa ngi koy ñaana bu baax waaw di wax ne rek xam nga Gaston Mbengue lu mu def maanaam day in day day yëkkati war làmb waaw day yëkkati war boo xool boo gisee ma posé la question mooy amateur yi li na moon mooy combat Balla Gaye 2 ak ki nga xam moom mooy booy ñaa waaw booñ combat Balla Gaye Boy Niang loolu keroog laajoon nga ma si ma wax la si nee naa la loolu du combat. mais amateur yi ñoo ko bëgg Bou Siteu combat la ak du combat waxuma loolu mais amateur liñ bëgg nag loolu la promoteur yi war a tëgg. waaw amateur moom liñ bëgg moom moom la promoteur yi tëgg mais amateur yi tamit am na si amateur yoo xam xamante ne tamit xam nañ lu jaadu ak lu jaaduwul ndax Balla Gaye boo xoolee li mu fi def Boy Niang defu fi loolu Boy Niang gars yi nañ bàyyi di ko di ko aj ay escalier si côté Balla Gaye imagine toi Boy Niang Balla Gaye loolu neexul a déglu loolu neexul a dégg parce que alxuraanu ko mais Balla Gaye 2 Boy Niang moo gën a jaadu Balla Gaye 2 Gris Bordeaux revanche combat boo xam ne daaw lañ ko bëree def match euh, Balla Gaye daan ko par avertissement waaw par avertissement maanaam loolu dafa war a leer loolu waa Fass yàqamti nañ loolu waa Géeja waaye tamit yàqamti nañ loolu ndax loolu man Balla Gaye 2 loolu du victoire man kontaan ma si loolu ma dama bëgg mu jàpp ma Gris Bordeaux defal ma ko comme nu mu daan def booy comme nu mu daan def ay Tyson combat bi passe Gris Bordeaux moo def de parce que loo xam ne Balla Gaye kenn xamee ko ko musul bëre Balla Gaye musul bëre cinq minutes mat une minute trente secondes Balla Gaye dem ñibbi mu bëre Gris Bordeaux Gris Bordeaux yóbbu ko ba temps bi jeex non Balla Gaye seega daa am si mu jugee woon quoi dafa am si mu jugee woon moo waral lool noonu waaw am si mu jugee woon moo waral sax mu bëree noonu tamit waaw moo taxoon tamit mu jël Gris Bordeaux mais Balla Gaye ku jël roi des arènes kon Balla Gaye 2 ndaanaan la. est-ce que nekkul waa Guèye dañoo daw euh, xool ne Boy Niang du du ñeexam ñebe ngeen bàyyi ko fi damaa jëlaat Gris Bordeaux parce que amateur yi kontaanu daal ci combat bi. non Boy Niang combat boobu moog Balla Gaye am na fayoon nañ ko si xaalis muy taamu di laaj lu seer moo waral sax xam nga combat kiiwul te Balla Gaye ak Boy ñaa sax lool noonu du du làmb waaw maanaam loolu du làmb quoi. Boy ñaa na prouvé Boy Niang ay Malick Niaye ay dafa war a ak ñoom ay Malick Niaye dafa war a laal ak ñoom dafa war a dugg fu saf. bu war a bëreeg ay tafaatin tafaatin dafa war a bëreeg tafaatin te tafaatin Balla Gaye 2 daan na tafaatin xam nga dafa war a bëreeg tafaatin balaa muy bëreeg moom. Balla Gaye 2 daa am na combat maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal ndam sama papa jooj maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu saako yor numéro 2 maa ngi koy nuyu nekk Espagne xam nga. di nuyu waa Espagne ñi mu fa nekkal ñoom Ndiass Mbaye Diagne ñoom Jibi Ndiaye maa ngi bu baax ñoom buur Diop gars yi nekk foofu ñoom baaba dafa mel ni bi géej waaye amagu ndax Gris Bordeaux waat na ne day door Balla Gaye mu wax rek Gris Bordeaux moom day day day wax nii nii rek moom kenn xamul mbër la léegi kenn xamul léegi day bëgg kenn xamul day bëgg léegi dox si affaire u na na kii làmb ji bàyyi al CNG na bàyyi waxu CNG Alioune Sarr day liggéey nañ ko bàyyi mu liggéey te mu visé làmb ji mu bi mu visé mu bàyyi lool bu ko Balla Gaye 2 jàppaatee bu ko Balla Gaye 2 jàppaatee nga génn ci. bu la Gris Bordeaux jàppaatee laay wax fi ne ndax ndax Balla Gaye 2 jàppoon na jàpp bi leerul tey Gris ma war a jàpp parce que buñ buñ buñ buñ bëree da koy dur daan. non Gris day wax rek moom day neexal la moom sax combat moom léegi Gris Bordeaux amatul Gris Bordeaux ay ay mag la daan daan moom daa moro moroomu góoram lu naan dajeeg sa moroomu góor gis nga combat moom Balla Gaye bi deux bi passé Balla Gaye doo nu mu ko def da koo dóor dóori métti ba ba ba mujj bi ba mu ñibbee sax sit yi ko doon seeti sax SBT Média tim ko micro muy mu gis xamul sax lu mu war a lii ndax kanam gu néewi gis nga Balla Gaye nu mu ko def du ko dóor ba gisul di laajte site bi naan site bi ban site la kon kooku yow bu la kooku bu la jàppaatee lan la war a def amay bañ Balla Gaye de ray ko sax <laughs> ñu noonu dégg ngeen li nga xam si ne moom la Bou leeral ci combat bi nga xam si ne mooy Balla Gaye 2 ak ki nga xam si moom moo di Gris Bordeaux di combat boo xam ne nag amateurs yi dañuy wax ni damay amateurs yi bëgg nañ ko ndax dafa bëgg dañoo bëgg xam ne kenn mosu koo xamee Balla Gaye 2 mu bëree 30 minutes ba di jox ko victoire par avertissement c'est la première fois Gris moo ko def mën nañ ne sax amateurs yi dañoo wax keroon na Gris Bordeaux yaa am ndam kon bu ko Gaston andiwaatee tëgg ko xam si ni euh, saa war a ñëw ñëw na gis ngeen combat bi nga xam ne bëggaan na muy Bombardier ak Eumeu Sène noo ko gisee. Bombardier ak Eumeu Sène waaw xoolal loolu rek loolu loolu njardeem la xam nga ne Bombardier ak Eumeu Sène loolu maanaam xam nga loolu maanaam lu lu ñu war a leeralaat la ba mu gën a leer barke arxuraanu karam loolu ay combat yu neex la loolu day dekkelaat làmb ndax làmb deewoon na waa di wax ne tamit làmb bu dekke war na de mais stade bi na si seen CNG wax. li ñuy luwee promoteur yi stade bi dafa metti yow imagine toi ka mooy tëkkale Gaston Mbengue ak benn yi daal di nga wala benn Fallou Ndiaye ngay tëkkale promoteur yooyu doole yi bokkuñu yamuñu xam nga nañ wàññi stade bi imagine toi promoteur yi ndaw yi un million ngay joxe bala ngaa tëgg ci lan arène nationale loolu pour lan la di ñaan Matar Ba ministre de maa ngi lay ñaan sama papa sama xarit waaw ak lu baax li la ñi xamee si si si Sénégal xamee la ko ci réew mi xamee la ko ci sport bi yow sport yëpp ngay suivre ñu ngi lay ñaan Iba maar Diop na ñu ko tijjilaat waaw Matar Ba yow laay waxal man Bou Siteu maay wax ak yow maa ngi lay ñaan ah Iba Mar Diop lillaahi wala suure ubbilaatal ñu Iba Mar Diop ñu dem fa promoteur yi mag yi ku mën a tëgg fee tëgg fa xam ko ñu wàññi stade bi ñum promoteur yi ndaw yi ñoom fee lañ miin gis nga nit du miin fenn nga ñëw jëlee ko fa far force. seen stade bopp ngeen am léegi seen lamb moo tax moo ko tax a jóg. waaw pour lam moo ko tax a jóg mais gis nga li ñu si def li ñu si def dafa metti neexul benn promoteur un million ngay joxe bala ngaa tëgg loolu pour lan la loolu pour lan la. un million nga war a wax mooy waxtaan leen laan maa waxtaan leen rek ñi nga xam ñoom ñoo seex affaire bi ñu xool stade arène nationale bi comme lamb moo ko moom nan lañ koy yombalee ba lamb man di dox. mais ni ko war a yombalee muy ñu wàññi ko rek. promoteur yu ndaw yi buñ ko soxlaa buñ ko soxlaa ñu liwee leen ko sax benn mala sam waay benn benn 400000 wala benn 300000 xam nga doole yi yemuñu doo tëkkale Gaston Mbengue wala ngay tëkkale Luc Nicolas ak yi daal di nga wala ngay tëkkale yi daal di ñi nga ak Fallou Ndiaye wala ay ñoom Sambay promoteur yu nekk fii baax xam nga nekk ay borom baax doole leen tëkkale est doole yi bi yamuñu doole yi yamuñu loolu laa bëgg nit ñi di si bàyyi xel boobu loolu laa bëgg gars di si bàyyi xel doole yi yamul waaw nañu wàññiwaat stade bi ba pare écran bi fa nekk gis nga boo boo seetaane chinois yi ba ñuy ñëw di intégrer kii bi stade bi gis nga écran bi ko taal ñuy ralentir affaire yi xam nga mais écran boobu gars yi maanaam dañ ko war di taal ñun ñu siy gis suñu bopp xam nga promoteur bi si gis seen bopp amateur bi mbëri si boppam bu sit amee jël leer na wala leerul bu ñu indiwaat imagine toi Iba Mar Diop bu ma fàttali ko jamono deux mille cinq ay deux mille huit Mar Diop aran kii bu fa amee làmb da ngay gis écran lañ fay jéem a sax monté bu kii amee gis nga ñu nekk ku nekk si stade bi da ngay gis da nga naan da xam maanaam li xew bala ngaa egg sa kër kon écran bi bëgg naa arène nationale nañ ñuy taalal écran bi ñun ñu siy gis suñu bopp xam nga. mais su ma la déggee yow vaar nga bëgg vaar bi da bëgg combat ay 4 appui 3 appui leer naag leerut da ngaa bëgg ci biir stade bi balaa mbër miy génn stade bi ñaari mbër yi kenn ku nekk yóbbaale sa këru leer. yow xam nga lu tax nga neex ma yow nante nga vaar dafa am xoolal tubaab bi te te li am dafa dafa rëy li ñu Macky Sall defal la 32 milliards xam nga ne 32 milliards loolu du ay fo xam nga kon nañ jël écran bi di ñu ko taalal chaque lamb ñu siy gis sunu bopp xam nga gis na lamb bu fi amaatee arène nationale man maa la wax loolu nag bu fi lamb amaatee ma dem stade écran bi taaluñu ko dinaa dinaa def marche. damay woo non dafa naag boo seet lool loo ci marche. dañuy non écran bi dañu ko war di taal. mais imagine toi 32. rek nga def marche mais dama pour mais dañu ko war a taalal dafa bokk si lamb ji. dafa bokk si luy taaral lamb loolu amateurs yi loolu dañoo namm loolu amateurs yi namm nañ loolu. gars yi nañ taal écran ñu si. mais yow mais yow écran war a mooy li war a defee marche mooy euh, na arrêté maam nañ wàññi stade bi ah comme mbër yi wax naan na Alioune Sarr dem wala nañ nañ andiwaat arbitre yi wala naa nga yow kay damaa jàppoon booy def marche loolu nga def marche mais taal écran boosté nga nga def marche. non dama si def marche parce que man dama bëgg man dama bëgg lu taaru man dama bëggal mbëru Sénégal maanaam lu taaru man duma xool sama bopp damay xool mbëri tamit samay moromu mbër bëgg xam nga damay xool ci ñoom liñ bëgg ak amateur yi liñ bëgg amateur na ndamu nañ loolu imagine toi loolu noonu lamb amoon tey mu tàq xool sama combat bi passement bu ndaw imagine toi écran bu tàqoon bu Siteu fu mu toog lay toog di xool ni ma ko zongalee ak ni ma ko dóoree suuf ni ma koy rokkosee xam nga loolu dafa neex man loolu laa bëgg gars yi indi war ko ci lamb ji écran bi nañ ñu koy taalal ñu ciy gis suñu bopp xam nga nañ ñuy taalal écran bi ah. parce que li nga wax nii moom benn côté mën naa ko d'accord ndax xam nga mbër ci biir géew bi ñu daan la ba pare nga yóbbaale victoire nga yóbbu victoire boo xam ne yow yóbbu nga victoire mais leer na la victoire moomoo ko loolu dafa xaw a metti dafa xaw a metti bu dee la nga yóbbu drapeau ba ñu nanguwaat drapeau bi andiwaat ko joxaat ko kee waaw loolu li may ñaan daal maa ngi ñaan nañ nañ dañ ñu defal loolu écran bi nañ ñu koy taala ba pare Alioune na nañ bàyyi coow ñu bàyyi ko mu liggéey Alioune Sarr nañ ko bàyyi mu liggéey ndax bu ñu da ngaa changé de non dama changé kii kii de sama benn boy sama benn coiffure kooku moo may wat kooku mbapat ba léegi moo may wat l'infant ñu koy wax l'infant fan yi dama ko ubbi benn place buntu gaalam defara ko mun naa muy liggéey xam nga ta te benn lañset lay liggéeyee wat la sa mun na wat cinq bopp si benn lañset dafa ay xam nga l'infant sama fils la moom génn fii nga di gis lii man ñi may bëggee dafa naag yow benn lañset nga wat ci cinq bopp loolu may la waaw kooku moo boo nee géejawaay l'infant benn bopp la buuse la benn la xam nga rek yàlla mooy def si doomu aadama bi xam nga nga mën loo xam te ne ak kenn du ko mën yàlla moo def si moom loolu l'enfant sama boy la sama fils la moom mag nag mais dama ko yab sama gaan la. monsieur dama benn lanceur pour benn bopp la laa loolu laa bëgg mu leer. waaw lanceur pour benn bopp la mais moom dafa aay. yow boo xoolee fu mu génn nii rek xoolaatal fu mu génn xam nga ne lii nii am na ñoo xam de naan ko fils moo ko defar. te lii benn moo def lanceur moo def lii benn lanceur la defee nii. dërëm benn lanceur bi fukki dërëm moo def lii yëpp kooku dafa xarañ maa ngi koy ñaan yàlla. tëndeuse la. non du tëndeuse lii dafa garaaw xam nga maa ngi ñaan daal Alioune Sarr yàlla nañ ko fi bàyyi mu liggéey xam nga ñu def luy jëmale lamb ci kanam dañ bàyyi coow li. fan yii nag fan yii nag fan yii nag coow moom mooy mooy seen waa écrit yéen rëg-rëg ak sa sa sa patron bi guy gi booba léegi coow li bëri na coow li bëri na mais bu seetee la ngeen la ngeen la ngeen la ngeen daw ci rëg-rëg. xam nga man man am na yenn yoo xam ne maanaam bugguma di ci dugg di ci wax rëg-rëg maa ngi koy nuyu bu baax keroog dafa ma dama ko fekk poor boobu Lamine Diassé laa doon seet si port ak kii ñam jaw fara xam nga rek waa port xam nga dañ may bégee waa port dañ may jàppale bu baax su ma amee xaalis jën yu bëri lañ may may may ma xaalis bu bari waaw Lamine jaasa laa fa doon seeti port xam nga ak ñoom jaw fara ñoom deef ñoom momo xam nga ma daja fa ak rëg-rëg mu gis ma rek tëj oto bi parce que maanaam loolu dafa nekk lu ma marqué mu gis ma rek waaye fel oto bi gaan waaj na ay eh, taxawal ne kii du Bou xam nga xam loolu dafa garaaw man mosuma woon xam ne rëg-rëg mu xam na ma mu may bàyyi xel. mais bu Siteu champion nga da làmb. yow waa yow ak lu làmb àdduna ñoo la bëgg yow yaay mbëru askan ndax gis naa euh, sa kii fan yii gars yi nee nañ boo amaatee combat moom ñëpp entraîneur yëpp nee nañ day ñëw stade. parce que seen doo ñëpp ay ñëw te parce que damaa nekk xale nekk xale bu ndaw defaguma ci làmb dara ñëw bëri huit combat am six victoire deux défaites maanaam def si làmb lu garaaw man sama combat ñëw seetaan bu Siteu ambiance rek wala mu taxaw ñu yuux suñuy tur rek spectacle yi may def foofu noonu loolu la da ngay seetaan dem ñibbi man am na ñoo xam te nii rek dañuy ñëw ne ma mbër maa woon stade mais ba nga tuusee ba pare wala wala ba ngeen defee kii bi si géew gi ba nga defee say spectacle man laa génn dem ñibbi te ticket bu seer la dagg cent mille la dagg ne ma man lool rek moo may daan ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam te ni man dama leen di dama leen di bégal xam nga dama leen di bégal kon ñooñu aw ma seen fay rëg-rëg ba mu defee loolu loolu dafa nekk geste bu garaaw maanaam rek dafa wàcc rek ñëw gaan xam nga dama kii du Bou Siteu xam nga xam nga amul loolu dafa garaaw Ama Baldé keroog def na ma ko Ama Baldé moom xamante nañ bu baax keroog def na ma ko affaire dafay marqué quoi mbëri mag yooyu nuñ may feeñoo xam nga mel ni man benn Modou Lo laa maanaam loolu dafa nekk lu ma marqué Reug Reug si loolu xam nga ñu waxtaan si ni barke yaa mu yëkkati xaalis bërëm may ma ko ne ma dama lay bégee ne ma sunu kër gars yow bu ñu lay wane gars yi dañuy ree dañuy kontaan xam nga loolu dafa neex Reug Reug maa ngi koy bégee bu baax di ko di nuyu Lamine. birig birig la la door waaw xam nga rek barki yàlla combat bi dégg naa am na combat mais ñu ngi ñaan rek këlëmeer gañ ku daan baax na. du ma dégg dégg lool koo xam ne yen yéen bokk écrit nekk sa nekk sa patron sa patron nga nekk leen naam ëllëg ëllëg nga war koo mën a wuutu ci foofu noonu bu dee dem na fa bàyyi bëre mu daje rek rek nga naan këlëmeer gañ non bu si du ma dégg lool. non këlëmeer gañ guy gi rek rek nga wax. waaw këlëmeer gañ. këlëmeer gañ falaa yem ko waa xam nga rek am na yeneen yoo xam maanaam du si bëgg di wax man waxatuma xam nga dama la doon am xam nga dama déclaré rek man laa si jëmm jooju noonu man la waa géej waaye dañ may tere di wax si moom léegi waa diaspora bi ñoo may tere di wax si moom ñoo ñoo naa ma baal di wax si kooku te parce que yow da nga nekk si yoon yow waroo nekk fii di di tontonteeg ay mag guy gi sama grand frère la waaw da am na lu am noonu luñ dund Sénégal ñëpp xam nañ ko xam nga tee na boppam man tee naa sama bopp xam man sama yoon li nekk sama kanam laay visé man ci loolu laay wax maanaam si sama xam nga man dama Bou Siteu Bou Siteu yéen ñaar yéen a bokk écrit yéen ñaar a bokk écrit mu am combat man damaa kay nga sax moom bu bëgg naa yàlla may ko ndam mais que le meilleur loolu moo war a nekk sax Bou Siteu nag yow nag non que le meilleur gagne te parce que ki muy dajal xam nga daf ma ji loo xamante nii man ba tey su ma toogee dégg turu Reug rek nii sax sama xol day fees quoi te parce que daf ma def loo xamante ne nii lu garaaw maanaam feeñu bi mu ma feeñu comme li ma lay wax loolu daf ma marqué ba tey kon moom buy bëre buy bëre sax sama mag bu doon bëre sama mag sax du ma ne sama mag yàlla na ko yàlla may ndam dama naan këram yar gañ te parce que moo ma ji lool moo moo am lu ma def loo xam te ne daf xam nga waaw su may wax moom ni sax sama xol day fekk te parce que Zoro daf ma marqué quoi li mu def noonu waaw mi ngi noonu mbokki internet di SBT Média amaan mbégte seen émission seeti mbër ñu dalal champion dalal ndaanaan dégg ngeen li nga xam si leeral na ko si combat Balla Gaye Gris Bordeaux ak ñàkk euh, combat Balla Gaye Boy Niang bi ñàkk taxaw dégg ngeen li mu ci leeral waaye dégg ngeen combat bi nga xam si ni moom la àdduna di waxtaane TFM bëgg ko euh, muy euh, rëg-rëg ak ki nga xam si moom moo di guy gi nekk komba yoo xam si ni bu sottee incha ay combat yu neex la yoo xam si ni amateur yi seen xol dina sedd mais bu sita faj